rom sar ñeent sunu maam ibrahima mi nu soqi ko nu mbiram tëdde bu fekkonte ne ibrahima ci kawi jëfam la ko yàlla àtte ni ku jub kon am na lu mu ci mën a damoo waaye demewul noonu ci kanamu yàlla lan la mbind mi wax ci loolu nee na ibrahima gëm na yàlla te yàlla jàppe ngëmam ni jub képp kuy liggéey dina jot peyam te pey googu du ak may ñaqam la waaye yàlla dina àtte jub sax ki ko weddi woon kon ku wéeruwul ci jëfam waaye mu gëm rekk yàlla dina jàppe ngëmam ni njub noonu la daawuda birale barkeelub nit ki yàlla jagleel njub fekk ay jëfam taxul mu ne ñi ñu baal seen jàdd yoon te seeni bàkkaar far ci kanamu yàlla ñu barkeel lañu ki borom bi sëful ay bàkkaaram kooka ku barkeel la kon nag barkeel googu ndax ñi xaraf rekk ñoo ko yeyoo ndax ñi xaraful it bokkuñu ci axakay ndaxte wax nañu ne yàlla jàppe na ngëmu Ibrahima ni njub kañ la ko jagleel njub nag ndax lu jiitu xarafam la woon am gannaaw ga lu ko jiitu la woon ndaxte Ibrahima gëm na te yàlla jàppe na ngëmam ni njub fekk booba xarafagul te xarafal gi màndargalawoon ci yaramam di firndeel ne ku jub la woon noonu la Ibrahima mën a nekk bàyyu ñépp ñi gëm ba yàlla mën leen a àtte ni ñu jub te xarafuñu sax te noonu itam la Ibrahima mën a nekk bàyyu ñuy xaraf bu fekkee yemuñu rekk ci xaraf waaye ñu am ngëm ga Ibrahima sunu maam amoon lu jiitu xarafam ak ñi naroon a soqikoo ci moom ne dinañu moom àddina si te dige boobu jógewul ci yoonu musaa waaye dafa jóge ci njub gi Ibrahima amoon ci kanam yàlla ci kaw ngëmam ndaxte su fekkee ne ñi nekk ci yoonu musaa rekk ñooy moom àddina kon ngëm amatul njariñ te digeeb yàlla dafa toxu yoonu musaa daal du def lu dul wàcce merum yàlla ci sunu bopp ndax fu yoon amul jàdd yoon du fa mën a am kon nag loolu yàlla dige ngëm rekk a koy indi ngir mu sukkandikoo yiwu yàlla rekk noonu la dige bi wóori ci ñi soqikoo ci Ibrahima ñépp du ci ñi nekk ci yoonu Musaa rekk waaye itam ñi gëm ni Ibrahima gëme woon kon Ibrahima mooy sunu baay nun ñépp moom la yàlla dogal wax ko ci mbind mi ne def naa la baayu xeet yu bari ndaxte Ibrahima gëmoon na yàlla mi dekkal ñi dee tey wax ci lu amagul mel ni dafa am Ibrahima dafa jàppoon ci ngëmam di yaakaar fekk bunti yaakaar yépp tëju moo tax mu nekk bàyyi xeet yu bari ni ko mbind mi waxe ne noonu la sa askan di mel meli mu xool yaramam xam ni dee rekk a ko dese ndax mu ngi tollu woon ci lu ma téeméeri at waaye ba tey ngëmam wàññeekuwul mu xamit ne saarata mëntula ëmb waaye loolu taxul nga ngëma di jàpp ko ba muy welente ci waxu yàlla ngëmam sax di gën a dëgër mu daldi sant yàlla mu wóor ko ni loolu ko yàlla dig yàlla mën na koo def moo tax yàlla jagleel na Ibrahima njub waaye loolu lañu bind ne yàlla jagleel na ko njub du Ibrahima rekk moom wax ji nun itam ci wax jooju lanu bokk te yàlla dina nu jagleel njub nu ñi gëm yàlla mi dekkal yéesu sunu boroom ndaxte yàlla jébbale ne ko ngir sunuy tooñ dekkal ko ngir àtte nu jub